بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة من كل سوء نجلين دي نيو دي سنتات برم بي سبحانه وتعالى دي كو نيان جابندل نجيغل ak mucc ci bépp jafe-jafe baaxeewaat nañ ñëw suñu dars al aqida yal nañu yàlla may aqida bu wér te jub te ñu ngi àndoon ak uh, al aqida al tahawiya ñu ngi nekkoon ci mbir aju ci ngëm mbir nga xam ne daa am relation ak imaan ndaxte moo doon al umurul xaybiya fi l axira mooy mbir yi nga xam ne mooy mbir yu nëbb yoo xam ne dañ la koy wax rek nga soog caa mën a xam dara fas ko mooy li ci gannaaw dee ba léegi ci loolu la ñu nekk suñu buntu tey nag seex bi junj na fi rek benn sax yaani benn bind rek mais ragal naa ne darsu bi yëpp day nekk ci benn bind boobu li ci aju dafa bëri niñ ko jàppee wuute niñ koy jëfee di répété kon loolu day laaj ñu settantal ko bu baax baax loolu mooy ñaan saraxe ñaan bi maana ki génn àdduna kii dund ñaanal ko mbaa saraxel ko mbaa jëf jëf joo xam ne jàpp nañ ne dina jëriñ kafaatu kon yooyu yépp mbir yu yu nëbbatu la te ñu koy soxla toujours ndaxte nit ñi ñu ngi dee toujours kon chef bi nañu ci xëtub ñetti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent 389 ci nusxa yi niro قال الشيخ رحمه الله وفي دعاء الأهياء وصدقاتهم منفعة للأموات kon lii mooy li seex bi junju bëgg koo méngale aqidatu ahlu sunnati wal jamaa mu ne ñaanu kii dund saraxeeb kii dund mu yéenee ko ki faatu bi mu def yanfa aw laa yanfa yasil aw laa yasil maanaam action bi dina yegg ci moom wala du yegg action bi dina ko jëriñ wala du ko jëriñ kon ci loolu ni kuréel yi taxawee noonu la ci nit ñi wutee ni kuréel yi taxawee wute ci pas-pas noonu la ñu wutee ci mbir nii boo teewee ci ku génn adduna it noonu ngay gis ñu wutee ci mbir mi nañu leen di ñaanale ak nañu leen di saraxale kooku seetee wute na lool lan nag moo ci dëppoo ak sowaab kon mooy mooy bind bi action gannaaw ki dee ñaari anam la ci ki nga xam ne mooy ki faatu ñaari anam mooy action boo xam ne qad tasabbaba bihi al boo xam ne ki faatu moo moo mooy sabab bi yaani am na lum ci def boobu benn la ci ñaareel bi action boo xam ne ki faatu moom yoonam nekku ci yëgu ko defu ca dara kon loolu mooy ki faatu ki nga xam ne mooy def action bi gannaaw ki faatu moom itam action boobu boo ko xoolee du romb ñaar action bi muy def badaniya aw maliya badaniya aw maliya taqbalu niyaba aw la mom action bobu muy def jëf la jëf lu melni ñaan lu melni julli lolu jëf la ndax man nako jëriñ bi moy maliya alal ba mel ni saraxee ndax man na koo jëriñ loolu action boobu muy def ndax yaqbalu niyaaba aw la ndax nit mu nees na ci wuutu keneen ba muy dund wala déet kon yii ñu junj yëpp boo ko déggee xam xam nga ne wuute am na ci yii ñu dund yëpp bu fekkee ne waaw waaw d'accord nañu ne nit mun na koo wuutu loolu li ci ëpp mooy maaliya alal nit mun naa keneen mu ngi dund ci alalam mu defal ko lii defal ko la defal ko laa wuutu ko ci waaye assalaa wa sawm ñenn ñi ne assalaa wa saw wal hajj wa zaka loolu ci maaliya lay dal di dugg ndax nit mun naa jullil nit mu ngi toog nii dund mu ne ko yow toogal ma jullil la toogal ma wooral la toogal ma ajal la donc loolu mooy bi nga xam ne ndax dinañ d'accord wuutu wala déet li ñuy wax yépp nag bu ci am na tegtal boo xam ne kacangooy noonu la ko déggee yii yépp nag dañ koy te wax yépp mais am na benn boo xam ne kenn du ko laal boobooy ban mooy al iman am nañu ko laal ci benn anam mooy al islam ndaxte kenn mënul wuutu nit ci al islam nit nekk na fee duggagul ci diine keneen yow ne duggal naa ko ci diine wala laa yumkin donc loolu moo tax asaas bi nañ ko xam boobooy iman boobu amul rek xalaas moo tax nga gis ni ñu sonnee ci yi parce li ñuy wax nii yëpp dafa aju ci imaan li yëpp gis nañ ñu ngi koy def gis nañ nit ñi nit ki bu faatoo gis nañ ñu ngi koy ñaanal ñaanal bi sariya joxoñ mooy jullee ko parce que ñaan la fekkee du ko jëriñ lu tax ñu koy jullee buñ ko dencee ba pare ñaanal ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale lañ fay ñaan ndaxte loolu ñaan la mais action bi nga xam ne wuutu la ndax mën naa faatu nga jàngal ko alquran ndax mën nga dem ca àmmee la bañ koy rob ngay jàng alquran parce que yëpp wuutu la façonu façonu ñaan la wala dem ziyaare ko ca bàmmeel ba toog di jàng alquran parce yooyu yëpp ñu ngi koy def ñu ngi gis nit ñi di ko def donc loolu dina laaj na nga xam sharia num ko leerale wala lan la ci borom xam-xam yi wax ak wuute bi ci am kon ñu ne ahlu sunnati wal jamaa ñoom ñoom dëppoo nañu ne jëfu kuy dund dina jëriñ ku dee jëfi kuy dund dina jëriñ ku dee moom dee na dem na xalaas mais jëf kiy dund dina ko jëriñ dina dina yegg ci moom ñi wax loolu nag ñu ne mun nañ koo déggee ci ñaari anam benn bi mooy ma tasabbaba ilayhi almayitu fi hayaati mu ne boo xam ne kii kii dee ci boppam moo ko initié woon benn doomam a kon moo ko initié kon doomam la doomam boobu toog di ko ñaanal kon moo initié woon loolu kon laa shakka beneen bi toolam la toolam la moom defaroon tool bi di def nangam di def nangam di def nangam waaye moom faatu na xëy na tool bi mënoon naa dem ci moomeelu keneen su fekkee defu ko waqf waaye bu ko defee waqf nag mais daa am ku ko ci wuutu defar tool ba génnee ko jox ko miskin yi jox jox jox mais loolu tasababa fii kon anam yu mel noonu bari nañu dañu def misaal misaal ci loolu rek ku mu jàngaloon alquran kooku wéy di jàngale alquran mais jàngale bu mu jàngale mom amna ci dara mais legui du action mais keneen moy def action bi mais ta sabbaba amna ci ben mbir boo xamne glisser won nako kon moy ben bi ahlu sunnati wal jamaa werante wuñ ci loolu ne dina jëriñ ki ki faatu ñaarel bi du'aaul muslimina wa istigfaarihim lahu wa sadaqa wal hajj ala lisan kon leeral na foofu mu ne ñaanub jullit yi xam nga ñaan yi moom deful ci benn effort moom waaye faatu na rek nañ ko ñaanal nañ ko jullee loolu mooy ñaan bi ñeneen ñi nañu jàng bismillah ay junni ñeneen ñi ne ixlaas ak ñaar fukk ak ñett ñeneen ñi yaasin ñeen fukk mais du'aawul muslimi loolu yëpp anam la yoo xam ne ñu ngi koy def ku nekk ba mu koy def mu ngi joortu ne boo gisee ma koy def ngir mu yegg ci moom ahlu sunnati wal jamaa dëppoo nañu ne lépp lu ci safaanoob sharia dina jëriñ ci faatu que moo tax ñu koy jullee lépp lu ci safaanoowul ak sharia dina dem mu ne sarax cala aj cala saraxel ki faatu ajal ki faatu mais cheikh bi nag wax na la dara de mu ne ala nisa mu ne loolu nag dëppoo ci de am na ab xaccoo bu ci ne waaye lu mu na mel ahlu sunnati wal jamaa moom d'accord nañ ci loolu ña dëppoowul ci loolu mooy dina yegg ci moom am déet faatu na ajal nañ ko yoolu aj yi lil mayit aw lil haaj fii la coow bi ne ndaxte yonent bi saxal na ne manees na ko wutu ci aj mais léegi nag yoolu aj ba ku ko moom ahlu sunnati wal jamaa ñoom d'accord nañ ne kii ñu ajal moo ko moom xalaas moo tax ñu ñu ñu ñu sart balaa nga koy ajal foog nga foog nga aj foog nga def sa sa ajub naafila moom ngay ajal keneen ñeneen ñi ne déedéet alxajju sawaabul xajji lil xaaj wa maunati l xajji sadaqatun lil mayit ñoom noonu lañ ko firee ñu ne tiyaabu aj bi moom ajkat baa ko moom xanaa lum ko fa ñaanal waaye sere bi ñu def ci aj bi pour aji pour def ko fa mu ne loolu moom dañ koo jàppee sarax la loolu ki faatu mën na koo mën na koo jëriñu loolu lenn ci ay kuréel gisee nañ ko noonu kon loolu benn la ca waaye am na kuréel yoo xam ne ñu ne laa yasilu ilayhi abadan wala yantafiu minhu shay'an mooy kuréel yooyu ñu romboon المؤتزلة الجهمية القدرية المرجئة لا لا يستفيد يعني لا من الدف دوكو جري توس يعني سيني سيني جسمي لولو لا دوكو يعني جري باسكو اكسيون لا بو خامني موم دفوكو تي بو ديمي سي القران يالا واخنا لا ني دوكو جري بو يكسي سي اياي يعني دينا نجيس نيوم نينكو niñ ko tegtalee waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi gis nañu ne buñ ko ajalee waaw dina yegg ci moom loolu mooy li dina yegg ci moom mais dina yegg ci moom it kooku aussi foog ñu gis ci ay surut yu baree bari benn na fekk ajoon na parce que bu ajuloon rek day walbate ku nekk ajam moom xëj na bu ko fa ñaanalee ñaan bi moom dem mais aj bi moom déedéet mais kii aj itam normalement dafa war a xam ahkaamul haj dafa war a moytu mafasidul haj foog moo xam dëgg-dëgg aj moom yan ñoo ko ŋànk waaye mu xamit liy yàq aj wa yuxlisu niya mu dal di sellal yéeneem leeral ko labbayka an fulaan bu ne labbayka foog mu ne diw parce que yonent bi sallallahu alayhi dégg na benn waay def ko labbayka an subruma kon kim doon ajal mooy subruma yonent bi ne ko ahajajta ndax yow aj nga mu ne ko déedéet ajaguma de mu ne ko labbayka an nafsika summa an subruma kon da aj ba pare nag soog a mun a ajal suba ba kon yooyu sax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa na loola wuute ci al ibadat al badaniya jaamu yàlla yi nga xam ne yaram la maanaa effort mu joxe ci misaal ka sawmi wa salaati وقراءة القرآن والذكر صلاة نت جلي نت جلي الكوديه وورا الكوديه جنغ الكوديه سرخ الكوديه بمعنى يلككو لولو دينا ور ولا دو ور ولوتي أمنا waaye bu dé ahlu sunnati wal jamaa ñom jàpp nañ ni aha wërna wërna lu melni abu hanifa lu melni ahmad ak lu ëpp ci ahlu sunnati wal jamaa ulama salaf ñu ne waaw dina yegg ci mom imam shafai waaw dina dina yegg ci mom waye الشافعي المشهور له كن أمنا بنين وخ مالك ادم وصولها إمام مالك ونديرت يوم تبان جسم بي ونديرت بيك لم مدن يك ويجلي وار جانغ القرآن saraxe tudd yàlla mu ne loolu du yegg parce que ay jëf la effort la boo xam ne nit moo koy def waaye boole wuñ ci aj parce que am na dalil boole nañ ci saw mais am na dalil moo tax buñ ci yeggee dinañ gis anam yooyu moo tax ñu la ulama u salaf ñoom d'accord nañ ne dina yegg man na nekk wuute bi nakala mais yeneen kuréel yi moom dañuy jàpp mukk manta manta ne moo tax kii tuddee fii ahlul bid'a ñu yàgg yi fu ñu ne ahlul bid'a rek ñu ngi ci namm alxawaarij aljahmiya mu'tazila murji'a qadariya ñooñu lañ ciy jublu mu ne ñoom moom ñoo bokk ñu ñuy tuddee ahlul kalaam ci ñoom la philosophie soqee ko ñoom ñu ne déedéet du ko jëriñ dara tus ki xes dund ba faatu jeex na ñaan du ko jëriñ leneen la ca gannaaw ñaan du ko jëriñ mais seen wax ji boo ko seetantalee mardu wax ji dañ leen koy delloo alquran delloo na ko sunna delloo na ko ulama u salaf delloo nañu ko ñu ne loolu ñu wax du dëgg manta ne parce que li ñuy tegtaloo yépp mooy mutashaabi aaya yoo xam ne la njëkk a dégg ca aaya ba rek la ñuy mooy te fekk borom bi loolu taxul wax ji jóg il faut gën a settantalaat xam lu tax wax ji jóg xam nga wax da ko dégg mais léeg-léeg dégg bi des parce que xamoo li tax mu jóg li jóg loolu looloo tax loolu nga xamul mais boo ko xamee rek da nga ci déggee lu yaatu ñoom ñu ne déedéet loolu borom bi subhanahu wa taala moo ko wax borom bi moo la wax ne wa laysa lil insani illa ma sa laysa lil insan illa ma loolu mooy lan nit amul lu dut lu mu jëf nit amul lu dut li mu jëf ñu ne kon nag nit ki faatu na keneen jëfal ko fii ci àdduna nit amul lu dul lu mu jëf mu ne loolu moom jëfu ko ñu ne loolu jëfu ko boo se sogee dégg aaya bi da ngay wax ne ah en li li ñu wax dëgg la de yàlla moo wax loolu de mais yàlla moo ko wax mais li tax wax yu mooy lan wa an lil insaani illa ma saa maanaa bi nekkul ne nit ki amul lu dul lu mu jëf déedéet nit ki dina am ci tiyaabu boo xam ne jëfu ko mais maanaa bi mooy lan nit ki moomut lu dul xalas loolu boo koy wax ja leer na nit moomut lu dul jëfam kii toog fii ci àdduna ne da koy jëfal dara mais kooku jëfam la moom kon jëfam boobu la am sañ-sañ ne yéene naa ko diw diw moomu faatu it na xam ne jëf jamu jëfoon moom la moom ci jëf jooju la mun a yéene keneen waaye loolu wa kenn munu cee déggee ne bu la keneen defalee du la jëriñ kon lu tax nit bu faatoo ñu ñaanal ko lu tax en tout cas ñoom itam jullee néew de kon contradiction ñëw na yow nga ne jëfu keneen du ko jëriñ nit ki faatu nga taxaw nga ne nañ ko jullee ñaanal ko ñaan bi du sa jëf yow lu tax nga koy ñaanal pour mu jëriñ ko kon yàlla waxu la ne du ko jëriñ de yàlla da wax ne moomu ko te loolu mooy li wér moomu ko nit ki li mu jëf la moom te ci loolu na mun a baaxee keneen mais jëfu keneen munoo cee baaxee keneen parce que moomoo ko kon aaya boobu moom bu ñu fettantalee da nga gis ne wax ji foofu leer na kon aaya boobu mooy suratu najm am na beneen bu suratu yaasin borom bi ne wala illa ma kuntum hakada mu ne duñ leen la ñu jëf mais xoolal aaya bi subhanallah bu leeree rek xam yàlla lu mu wax wala tujzawna duñu leen ah, kon fay la wax kooku muqaabil amal parce que yàlla ku maandu la kooku jëf nag jëfam kon yeyoo na loolu tax ñu tuddee ko fay ku jëful dinañ la fay mais li ko keneen jëfal buñ ko ko jox ndax fay la abadan kooku lan la kooku du fay fayuñu ko ko dañ ko koo baaxee bokkul ci fay dara yàlla lam doon wax moom jëfam bi mu doon jëf dañ ko ko fee te yàlla fu mu wax loolu li ëpp li tax wax ja jóg mooy safaan li ëpp li tax wax ji jóg léeg-léeg mu yóbbaale leneen mais li ëpp rek mooy lan safaan wala tujzawna illa ma kuntum taamaluun li ngeen doon jëf rek lañ leen di fay mais bu ñëwee ci lu baax benn bu baax kam yu qaabil ashara <laughs> kon ndax fay nañ ko lu tolloog la mu jëfoon abadan kon fii li ci ëpp dañoo ak sayyi'a bi misliha li ëpp loolu la mun naa yóbbaale leneen nag mais boo settantalee aaya rek li ëpp lool la kon ñoom aaya bii du seen dalil dañ koy wax noonu rek parce dañu dégg ci kaw rek ñu jël ko noonu mais déedéet nit ki la muy jëf bu dee lu baax dañ ko koy fulal bu dee safaan ba nag ci yërmandeeg yàlla lenn la laay doon waaye bu dee jëf rek pour peyoor moom la waaye bu dee lu ko keneen defal loolu mbaaxub borom bi la subhaanahu wa mu dal di ko nangu ñu tegtaloo ci hadis boo xam ne bés bu ne nga dégg ko te mun nga ko ciy déggee ci la ñuy wax mais boo xóotalee gis ne bokkul de ينتهي من إذا مات ابن آدم انقطع أمله إلا من ثلاث بنات بن صدقة جارية علم ولد صالح خلاص نيلا منه نكي بودي جفم جفو كان جفم تخاونا ah loolu taxaw ndax jëfam taxaw na wone na ni tiyaaboom taxaw na la jëfam la wax da doon julli julleetul da doon saraxe saraxeetul mais jëf ji taxaw na amaluhu inqataa mais assawaabu ilayhi mustamir si tiyaabo bii dem ci moom mën naa wéy mais tiyaabo boobu du jëfam mais léeg-léeg nag fekk contribuer na ci léeg-léeg du ci contribuer benn yi mu wax fii yu ci gën a bari da ciy contribuer loolu la wax sadaqatun voilà du moom moo ci contribuer defoon nag tool tabaxoon na jàkka defoon nag kër doon na gasteen loolu yëpp mu nekk waqf sadaqatin jaariya mu ngi wéy di produire feeg mu ngi produire mu ngi yegg ci moom waaye in qataa amaluhu mais sawaabu amalihi mustamir tiyaa boog jëfam moom mu ngi continuer ndax sabab la ca woon ilmun yuntafau bihi waaw xoolal cheikh bi junni at ak lan junni at yu teg moom seex bi ba mu faatoo ba léegi ñu ngi toog fii di jëriñoo ci lanam xalaas moom bind ba mu doon bind saraa ba mu doon saraa taxaw na wala taxawul taxaw na njëriñ bi nga xam ne ñu ngi koy jëriñoo taxaw na wala mu ngi wéy kon ci wéy boobu la tiyaabo bi di dem di yegg ci moom léegi yàlla gën ko yombal léegi de léegi nit mun naa faatu téeméeri at ñu ngi jëriñoo ay waxam téeméeri at baalu ko ëpp boo duggee ci net bi jëriñu ay waxam mel ni moo toog di jàngale te fekk inqata amaluhu moom jëfam action ñu doon taxaw na bu yàgg kon action bi mooy taxaw waaye effet bi mu ngi dem ilmun yuntafau bihi mais gis nga gis nga yonent bi wa sallam waxul de xam-xam la wax bu ñuy mais bu dee buy lore nag voilà daa réeraloon nit ñi tuubul seen gannaaw rectifié wul ba mu faatu ñu daje ci ay bidaa di def ay musiba di def ay bokkaale te moo ko initié woon yowmal qiyaama ñu atte atte ko ci parce que moo ko initié kon day dem kon yooyu yëpp nit ki dal di ci bàyyi xel waladun salihun waxul waladun rek de waladun salihun yemul ci loolu rek de yadu la mu ne mu bàyyi fi doom bu baax bu koy ñaanal léegi du moom mooy ñaan kan mooy ñaan doom bi moom ànd naag mbaaxam léegi kan moo baax doom ji kon léegi nekkatul ay mbiram mais sabab la ci moo taxul nuuxu ba mu kaasalee doomam bi ñu ne ko déedéet waaye nuuxu amalun mune yow sa doom jooju jëf ju yàqu la xalaas amalul xëyru saalih kon hadis bii ñuy tegtaloo ñu jàpp ci kalimatu in qataa amalu mu ne jëfam taxaw na mais ñëpp xam nañ ne jëf ji taxaw na mais ñoom foofu rek la ñu téye ñu ne gannaaw yonent bi ne na jëf ja taxaw na rek loo mën a jëfati munu koo jëriñ voilà mën na koo jëriñ mun na koo jëriñ ci takkug ahlu sunnati wal jamaa kon am na ñoo xam ne ñu tegtaloo ñu ne bu dee jëf yoo xam ne ay action la te ba muy dund kenn mënu ko ci wuutu mooy al ibadat allati la tadxuluha niyaaba bi xaal julli kenn mënul jullil masamba mënul jullil ma demba abadan Bulu ko woral way man nako koo saraxeel bal koor amna tektal yu ne man na ne te da bok ci ibadat al badaniya mais bi sart an yamut ba muy dundu man tane motax ñu wutal ko badal lu koy wutu lan moo koy wutu itaam itaam mo koy wutu bu fekkee ne ba muy dund kooru farata la parce que boobu lañuy wax ne la ñuy fay bu dul boobu rek koorug miséer la mais koorug farata dafa war ñëpp kan moo lay wooral parce que dafa mënul ne kan moo lay wooral parce koor te précis yow da ngay yéene sa bopp wooral sa bopp mais kon ban nga am pour wooral keneen wala da ngay bàyyi ba koor gi jàll nga nga nga fayal ko hakada moo tax ñu wutal ko badal ñu wutal ko loo xam ne mooy lele mu dal di ko wuutu waaye bu dee koorum nisër nag ay dalil ñëw na ne man na ne ndax moo ko war warlul boppam kon keneen keneen mën na ko ci mën na ko ci wuutu loolu keneen di ko ci de ko ci de ko ci wuutu ñu ne nag ñu yooyu yu mel noonu ñu joxe ci misaal ñu ne al islam wa sola wa sawm wa qiraatu al quran ñu ne yii islam kenn mënu ci wuutu kenn loolu moom lu wér la kenn mënu ci wuutu kenn julli waaw koor mun na ne jàng alquran mun na ne mu ne ndaxte yii tiyaabo bi ki ko def dong moo koy am ki ko def rek ci moom la la tiyaabo bi di yem laa yataadda du ko romb dem ci keneen mu ne ndaxte ba muy dund kenn mënu ko ci wuutu kenn mënul wax ne toogal ma jàngal la alquran déedéet mais man ngaa jàng muy déglu mu am ci tiyaabu bi am déet voilà loolu ba muy dund la mais ma jàngal la Alquran toogal yow bul jàng man ma jàngal la bul julli man ma jullil la bul woor man ma wooral la la aga laa ba muy ba muy dund ñu ne kon bu faatoo noonu la war a mel warul soppeeku kon loolu boo ko xoolee ci njëlbeen gi dangay ngay wax ne xel nangu na ko gannaaw manoo ko ci wuutu ba muy dund kon bu mu deewee noo ko ciy wuutoo boo xelaatul bu baax da ngay wax ne noonu la waaye demeewul noonu ndaxte am na riwaaya abdullahi ibnu abbas ñu jële ko ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam mu ne la yusalli ahdun an ahdin ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من xanfa ñu ne lii mooy suñu tegtal mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax lu leer naññ mu ne kenn munul jullil kenn kenn munul wooral kenn waaye mën naa lele mën na koo leleel moom amul lu mu lelee sax mais nga génnee alal yow nga leleel ko mu ne loolu loolu mën naa nekk mais décision bi nekkul foofu loolu nga ñëpp d'accord nañ ne man na ne mais ba muy dund la léegi dundatu yow moo toog neex la rek nga naafi la pare ñaanal ko nga jàng alquran yéene ko ko mu ne loolu moom jotewul ak lii dara dara la jotewul ak lii ba ci hadis bi ngeen bugg cee tegtaloo ne yooyu kenn munu cee wuutu kon saraxe dong la mën a doon déggin la ñu ne boo seetee itam jëf yi nga xam ne ki faatu mën na cee jëriñoo te mu bokk ci yi nga xam ne moo ko initié woon ba muy dund alquran saxal na ko sunna yonent bi saxal na ko boroom xam-xam ci saxaaba yi dëppoo nañu ci te defé al qiyas sahih da nga gis ne man na ne mune borom subhanahu wa taala wax nañu ne والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من يان تابعون إلى يان اليان الصحابة من برم بالله mais ñooñu dañ leen ñaanale ci lu ñu initié mu ne bul def suñu xol xaar ma yàlla ak ña nga xam ne ñooñu jiitu woon ci ngëm bi sàmmal ñu ko ba mu yegg ci ñun kon ñoom jàngoon nañu ngëm bi ci yonent bi sallallahu alayhi garde ko jàngale ko mu ñëw ci ñun dañu jot ci di ko di leen ñaanalee ca loola kon suñuy ñaan ca ñoom def leen di jëriñ mais bokk na ci li ñu initié lu tax ñu ne dañ koy jëriñ ndaxte aaya bi borom bi day tagg ñi am position boobu ñi ñaanal ña leen jiitu woon reconnaître seeni ngéneel mu ne loolu yàlla def leen ciy tagg kon jëf jim leen tagg jëf ju mu nangu la kon d'accord na ci ñaan bi ak ñaanin bi ak ñaay ñaan ak ñañuy ñañuy ñaanal kon loolu digle na ne jégguluk ñuy dund dina jëriñ ñuy faatu tegtale na itam euh, ka doon dund ba faatu ñaanatu kon inqata ñaanam moom amatu moom moom noppi na mais ñi mu bàyyi fii ñoom dañ koy ñaanal te jàpp nañ li wér mooy dina yegg ci moom mu ne moo tax yonent bi sallallahu alayhi yoonal jullee néew bu dee néew jullee ko mooy ñaanal ko te ñaan bi du yegg ci moom kon lu tax ñu koy def kon dañuy fas ne jullee néew day jëriñ ki ñuy jullee moo tax léeg-léeg ki dëng ahwaj ila salaa ki dëng moo gën a yeeyoo ñu ñaanal ko ki dëng ndaxte jàpp nañ ni moom ay bàkkaaram bari na yaakaar ci moom néew na am na ñoo xam ne bu ñu ñaanee yàlla nangu ko am na ñoo xam ne bu ñu ñaanee yàlla nangu ko yonente bi mu ne nit faatu ñu koy jullee ñeen fukk ñu dul bokkaale allahu akbar mais mbokk yi bu leen jàpp ne yomb na de yombul de ñeen fukk ñoo xam ne duñu bokkaale bu ñu ñaanee yàlla ci néew boobu mu nangu ko kon moo tax foo dégg mbokk jiitu na te man ngaa bokk ca ña koy jullee te jàpp nga ne yaa ngi moytu bokkaale kéem kattan waaye waaye mbokk mi fexeel bokk ca ña koy xëj na nga mottali lim ba na nga mottali lim bi kon loolu dinañ déggee foofu ne kon ahankay day day jëriñe ñaan yépp day dal di jëriñe tegtal yi jëm ca loola yooyu bari na yonent bi sallallahu alayhi buñ door rob néew bu ñu paree rek mu jóg taxaw استغفروا لأخيكم آه جيقلوا لهم سين بوكمي واسألوا له التثبيت نيانا لهم كنجر مؤمدر لاي يمنا تنتو لتخ فإنه الآن ndaxte léegi ليجي ليجي ليجي ñu ngi koy ñaanal mu jàngal ñu ñaan mooy ban wala mu jàngal ñu am ñaan waxal ñu sabab bi lu tax am ñu ko doyloo am ñu ko doyloowu ñiy def ñeen fukki yaasin dinañ ci ñëw ñiy def fukki ixlaas ak ñaar dinañu ci ñëw ñiy def ay junni bismillahi léegi nag li ci gën a doy waar mooy buñ ne ñaar fukki ixlaas afwan fukki ixlaas ak ñaar boo teewee pour cent bi lan la ñuy wax ixlaas ixlaas ixlaas ixlaas ixlaas parce que boo ne da jàng munoo romb trois lu dul ñoom pare nañu seen douze kon lan la ñuy wax ixlaas ixlaas ixlaas parce bul foog nit ñi xam nañ de ñu bari xamuñu de ñu bari boo nee fukki ikhlas ak ñaar ñom jàpp nañ ne baat bi lañu jàpp ñom ñu ko jappé li ngay wax fukki ya latif ñom non lañ ko jappé de ya latif ya latif ya latif kon ñom itam ikhlas ikhlas ikhlas ikhlas way fofu ben question mo fa ne anta alam amin nabi loolu dañu wara poser question bobu ya xam wala yonentu bee xam ah yaa gën a xër wala yonent bi yaa ëpp yërmande wala yonent bi yonent bi ne istaghfiru du loolu la wax yow nga ne jàng leen ixlaas wuute nga ak yonent bi de d'accord Qur'an la dinañ ñëw ndax dinañ ko jàng ci armele wala duñ ko fa jàngee nga commencé di jàng Yaasiin d'accord al Qur'an la mais lu teewoon rek nga yem fi yonent bi yemoon nga xam ne amul polémique ah amul benn lënt lënt jéggulul ko yow jéggulu nga ko waxal na la baat ya ngay wax allahumma agfir lahu warhamhu wa sabbit mantiqahu li yusal yàlla jéggal ko yërëm ko may ko ndëgër laay mu tontu ba ngay jàng yaasin loo soxla du loolu ba ngay jàng ixlaas loo soxla du loolu yonent bi résumé ko gàttalal la ko yow nga ne da ngay jàng yaasin ah mbaa xam nga li yaasin di firi mbaa xam nga aaya ya lan la ñuy firi aaya yaasin yi am na am na am na lu bari lu fa ne de sa waa ji ngay wax yaa koy rob nii malaaka yi di ko laaj mbaa duñ ko ne déglul sa gaa yi li ñuy wax mbaa duñ ko ko wax yee alam yaatikum nadir lan la ñu waxoon bala qad jaana nadirun fa kadabna wa qulna ma nazala allahu min shay in antum illa fi dalalin mubin bu yaasin bi mooy kabir non non bu bu baqa bu tabaara bi waaw bu mulk bi bii mooy mubin waaw Gjapon gane malaka ide gounyo nou nan yon fokou. Yon sa wajil lallou kon salolou salolou mba mounyewe. Nakala melon chi sun nam. Yon koko ifatili de. Kon bakwi nan yon baye chel de. Giswa Gjapon e di warna bakre. Mwosna tewe ken yon di joule niw. Yon ki ti batam choko. Nam. Nam. abdullah ibnu abbas mos naa def lu niroog loolu mais da doon won nit ñi ne jàng fatiha ci la mais waa ji moom daa kàbba recommencé fa amma in kaana min almuqarrabina fa rawhun wa rayhanun wa jannatu naim wa amma in kaana min ashaabi lyamini fa salaamun laka min ashaabi lyamin mu noppi ma ne ko wa amma in kaana du looloo ci teg demal rek parce que maandu ngay wax yaa ngi ñaan yemoo ci li la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon mais kon wéyal rek maandu nga bëgg wa ma in kaana min almukazibina dalina fa nuzulun min hamimin wa tasliyatu jahim xalaas kon loolu moo tax gis nga xelaat naa rek war naa baax du noonu de il faut nga bàyyi xel ci salawatullahi wa salaamuhu biñ la royloo ci jaamu yàlla te ñaan jaamu yàlla la bul créer sa bopp parce que moom yàllaa koy diy moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yow yàlla déeyu la de kon ki yàlla di déey situation bu am lii nga war a def situation bi taxaw mu def loolu yow nga ñëw xeeb loolu kan nga xeeb ki ko def yonent nga xeeb rek mais sinon da ngay doy mu wax rek nga xam ne looloo ëpp yërmande looloo gën a jub looloo loolu loolu même bu dee jàng alquran baax na bu dee def leneen baax na mais loolu moo gën bul tënk nit ñi bàyyi nit ñi rek mais tënk nit ñi ci loo xam ne kenn xamul lan la da mujj a gis ñoo xam ne dañuy xaddi dem yaa axi ci umur yoo xam ne ma anzalallahu biha min sultaan amaloo ko benn lay da jàpp ne rek lii war naa rafet kii ne lii war na rafet kii war naa rafet kan moo ko rafetal kenn kon loolu nit ki bàyyi ci xel mais bu jaaree yoon rek ñi ñuy gën a diingat ci jamono léegi mooy ahlu sunnati wal jamaa te boo seetloo ñoo gën a yombal ñoo gën a yaatal te ñoo gën a simplifier léeg-léeg da nga gi ñu robbi ni ñu koo kay ko dañ koo sànni ji parce que c'est simple gis nga diine c'est simple bu compliqué rek yow la diine bi yàlla wàccee yonent bi sallallahu alayhi jàngale ko ci lépp c'est simple bu compliqué rek yow la da nga gis ñenn di la jàngal dara compliqué ko da jàpp ne mënoo ko far ko bàyyi rawatina sangu farata da nga gis ñu koy compliqué complication boo xam ne lii ngay wax fii ngay raxas nii nga koy defee laa yaa axi dindil sobe rek ndox mi matale xalaas sangu nga amul leneen donc yooyu yooyu nañ ci bàyyi xel de mbokk yi xam-xam ci la de waaye imaan imaan moo koy gunge ñaan boobu itam moo tax sariya bàyyiwu la mu ne boo demee armeel sax nii nga fa war a demee boo fa demee nii nga fa war a demee noo fay demee nuyu asalaamu aleykum أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية قل الرجل من سيمفلي بويدا في أرمل وايد دنجا جيز دمال يوف نفون نمي دنكو ديك نجنا بري دنكو جيز نيدي بند محمد ني اندي اي فلور ني اندي لي ني اندي نوخ دي سوتي ñii di wër di ñii bind ay aaya ñii def lu la ilaha illa mu ne nga dal ko gis waa xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aleykum ahla diyaar yéen ñi dëkkee fii na jàmm nekk ci yéen min al muminina wal muslimin man ki leen nuyu nag maa ngi ñëw xaar leen inna incha allah bikum laahiqun ñu ngi ñëw de hakaza kon ñu ngi ñaanal suñu bopp di leen ñaanal jàppandal nasalullaha lana wa lakum afiya jàppandal waa yow loolu yëpp nga romb ko wuti leneen loo wax xolal la nu simple rek jafewul kon mbokk yi nañu bàyyiwaat nañu bàyyiwaat xel kon mu ngi mel ni waxtu bi dab nañu waaye ñu ta jeexalee ci sahaaba yi ni ñu xëree woon rawatina aïcha radiallahu anha mu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaw man nag bu ma demoon ca armel ya bëgg leenaa ñaanal lu may wax xoolal rek te laajoon nañ ko nag laajoon na yonit waaw man nag bu ma xamoon laylatul qadr lu may wax gis nga xelaatuñu woon jiitu parce que loolu aaya alquran la yaa ayyuha alladina amanu laa tuqaddimu wara xamas lii war naa baax rek jiitu nga yàlla ci loolu kon yàlla xamuloon ne baax na wala xamoon na ne baax na waaye waxu la ko yow nga jiitu ci yàlla wala nga jiitu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul danger bu ko ëpp ci àdduna amul bu jàpp ne bax na rek xolal aisha radiyallahu anha bam ko laaje mu jàngal ko li ñu waxoon léegi mu ne ko kuulii waxal loy wax assalamu ala ahli diyar min almuminina walmuslimin wa yarhamu allahu almustaqdimina minna wa minkum walmustaaxirin wa inna insha allahu bikum laahiquun kon mu yokk ci ay kàddu mu ne da ngay moyoo yéen ñi fi ne ñi gëm ak jullit yi ñenn ñi lañu mu ne yal na yàlla yërëm ñi jiitu waaye yal na yàlla yërëm ña caay topp ñun ñii nag ñu ngi leen topp di ñëw kon lii dañu dal di tënk kon ñu tënk suñu bind fii di ñaan borom bi subhanahu wa mu baaxee ñu fekkee ak tal ngir ñu xam lan la ñu joxoñ nag ci jàngu quraan ak anam yu mel noonu wasalaamu aleykum wa rahmatullah